lépp loo xam ne si nii actualité la di xew fii ci biir réew mi ma ci ànd ak Moustapha dama koy bàyyi mu nuyoo ñu soog a daal ci waxtaan bi noo def Moustapha maa ngi fi Cheikh Mahfous maa ngi lay nuyu di ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñu ci suñu émission bi di le point de la rédaction ayca tey nag Moustapha dañuy def euh, ni ni ñu koy wax point euh, de la rédaction euh, bu spécial ñuy jëmee ko ci li nga xamante moo di rétro jëm ci Adji Sarr ak Ousmane Sonko nga xamante ni eh, événement bu mag la woon donc ci mois de février nag mois de février la la daal di doore donc ci guddik 2 jàpp 3 février eh, ci la Adji Sarr daal di dem gendarmerie daal di déposer ab plainte eh, di tuumaal ki nga xamante ni. moom moo di son Sonko nekk député nekk aussi euh, njiital Pastef moom nag la mu ko daal di euh, tuumaal mooy que ni daf ko violé waaye tamit daf ko menacé ak ay armo donc euh, noone la ñu daal di jote ci mbir mi plainte bi déposé nañ ko les ko moo xëy daal di fësal boobu la plainte ci ci penc mi. Mhm. donc nga ñëw ci maanaam début bi muy plainte bi nga xamante ne Adji Sarr déposé na ko di ci guddik 2 jàpp 3 février. waaw guddi googu mën nañ ne ci la lépp dooree d' abord sax plainte bi nga tudd ni léegi juróon na coow après mm. parce que ñëpp dañoo gis ne après niveau plainte bi ni mu ko bindee mm. ak ni mu convoqué article 320 bi wax ci mbirum viol mm-hmm. euh, ak euh, yeneen article yoo xam ne convoqué nañ ko ci boobu plainte moo taxoon ñu bëri commencé ne lii du niveau Adji Sarr koo xamante ne am na vingt ans warul mën a bind euh, plainte bu ni mel après bi ñu gëstoo ba ci biir am na ñu ne kat ah plainte bi kat Thiam moo ko bind. Mhm. bañ ne xoolee ba ci biir. Dior Diagne euh, moi. Uh-huh. maître Dior moo ko bind. ñu gëstu ba ci biir maître Dior weddi ko ne dañ koy jéem a accusé appel ñu ne déet ko déposé. parce que moom ba ci biir lu ñu am dañoo gis ne euh, plainte ba dafa ñàkk way jur amul kenn koo xamante ne moo nangu ne. moom moo bindal Adji Sarr plainte bi bien vrai que nag xam nañ ne am na ñoo xamante ne recevoir nañ avant Adji Sarr bureau uh-huh. euh, après lu bëri xew na ci ba tax na plainte boobu rek moo njëkkoon problème parce que nangul woon wax ne maa ko jàppale maa ko bind beneen mbir mi tamit euh, li nga xamante ne après ba mu amee mooy

fàttali ko les échos moo koy yëkkale information bi bi mu koy yëkkaloo ci ngoon gi moom réagir page Facebook mm. après mu ne lii moo desoon tuumalaat ko sosal ko waaye mi ngi leen di xaar parce que gisagul plainte daal di dégager lépp à touche war a la xam nga ñu bëri lu ñu doon wax sax mooy bi coow jógee rek dañu Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko bu tenkee tànkam Sweet Beauté rek mm. am na na problème ñu bëri loolu lañ doon wax ñu ne bu tegee tànkam Sweet Beauté rek am na problème parce que du doon loo xam ne dina a setal ñu gis la ci ëllëg si suba teel gi bi coow li amee le lendemain Ndeye Khady Ndiaye borom salon bi def benn sortie boo xamante ni bu maladroite la def euh, doon jéem expliquer affaire yi ay fait yoo xamante ne après bi gëm lool loolu tamit doon loo xamante ne dafa doon indi jiixe jaaxa ci compréhension problème mu dëggal aussi

du dem euh, immunité parlementaire bi nga xamante ni moom moo ko protégé mu bokk assemblée nationale. waaw foofu la mbir mi dooree nag foofu nag ba plainte bi duggee nag si lañ xam ne nag ah fi ñu toll nag mbir mi mbir mi dem na ñu bëgg ko. parax paraxee yóbbu ko loolu la ñuy loolu lañ loolu lañ doon wax rek. ci mm. mbir yi ñu ne bu fekkente ne mbirum opposition la euh, après nag il faut que nag ñu am ci dal mais bu dee opposition la concerné dañ gis benn parax paraxe boo xamante ne duñ xam lan moo waral ñu bëgg koo convoqué moom unité parlementaire mm-hmm. léegi bi ñu bëggee fëkk loolu nag ñu indi euh, flagrant délit mm-hmm. ñu ne li mu def non flagrant délit te ñu xam nañ ne flagrant délit amu fa mm-hmm. parce que boo demee ci code de procédure pénale ni mu établir flagrant délit ni muy mel mooy maanaam ñu fekk la ci nga koy jëf loxo ci poos merci wala nga def ko léegi ndiiraan gi topp la nga siif sama sama téléphone daw ndiraan gi toog waaw mhm. yooyu mooy temps boo xamante ne dafa jege ak ak ñu fekk la ci biir nga nekk ci mhm. biir temps bi mhm. bi ñu demee ba mën a mën a mën a àtte donc mu doon benn erreur boo xamante ne ñi nga xam ne ñoo yoroon dossier bi pour man benn yàkkamte gu ñu defoon la tamit mu comprendre xam droit mu ne député la balaa ngeen maa dugg da ngeen war lever sama unité parlementaire mhm. bu ngeen ko lever tey bu subaa ma dem wuy ji leen mhm. je pense que noonu la ko waxee woon mhm. mais nag foofu nag mu dafa sorti bu am solo mu ne Macky Sall dafa bëgg sacrifier mais bu ma nar a sacrifier il doit accepter de se salir les mains de sang te loolu je pense que bi mu ko waxee mu woote résistance je pense foofu la njëkk commencé utiliser le mot résistance mu ne nañ génn lépp lu mu am ci xeex bi lépp lu mu am ci xeex je pense que loolu bokk na parce que amaana su yokk ko xëy ñu indi ko convocation le lendemain mu dem wuy ji bi ñu ngi naan kan moo ko yóbbul al wala kan moo ko yóbbu reer hmm. parce que ñu xam nañ mbir mi ni mu demee mais la mu def taxaw jàkkaarloog ñoom ne leen du dem tant que lewuñ sama parlementaire ba taxaw ñoom ñu xool xoolaat xoolaat xam ne kat fu ñu lever immunité parlementaire bi ñu doog ko yóbbu assemblée nationale xool naka la def ba ba ko loolu bokk na ci li nga xam ne moo sauvé député Ousmane Sonko ndax mm-hmm. bu ko defuloon ba léegi amaana mi ci kaso bi toog fa le 26 ci la ñu daal di yëkkatee mbalaanu kiiraayu Sonko di son immunité parlementaire donc mu daal di wuy ji ñi ak ñi ñi démission mmh. bu ñu fàttali député bi su mel ni ñoom Cheikh Bamba Dièye mmh. ñoom ñëpp dañoo mujjoon budde gedd dañoo mujjoon gedd commission ad boobu noonu mmh. Aïda Mbodj moo nekkoon ki nga xamante ne mooy député bi doon défendre Ousmane Sonko ñi ngi fàttali taxawaay bu am solo bu mu ci amoon tamit doon ko jàppale gëm na mbir mi benn acharnement bu ñu def la boo xam ne dañ koo bëgg faagaagal benn mhm. adversaire politique donc bañ ko lever rek nag après ci la Ousmane Sonko defaat benn benn mu ne niñ ko jaarale mbir mi jaarul yoon parce que dañoo salfañe ay droit am si mhm. am na ñu si dox ci ginnaaw avocat yi wax nañ ci moom ay kilifa diine yi ci wax ak ñu ñëpp wax ci ba finalement mu nangoo dem wuyu ji mais bañ koy doog a lever dana woon du du du ji parce jaaral ñu ko woon ci yoon bi ko war jaarale dañu respecté ñu ay droit am mhm. fële ca assemblée nationale donc bi mu doon woote. daf ko daf ko daf koo dooree ba dossier bi jógee ba ni mu ko dooree ba léegi da gis ne amul benn yoon boo xam ne daf ci wane benn taxawaay boo xam ne may na may na ñi nga xamante ne ñoom la ko sékkal mhm. wala may na yoonu léegi foo xamante ne yombalee nañ ko amul fenn fu mu leen ko yombalee amul fenn mhm. lépp lépp lépp da amul leen leen loo xamante ne jombal na ko et je pense que loolu moo tax mu yóbbu leen ci benn rapport de force boo xam ne après dafa tourner à sa faveur mhm. mu mujjee mu mujjee tax euh, le trois dañ koy dañ koy topp rek mars ci la ñu di euh, convoqué Ousmane mm. euh, bi ci yoon bi na lu bëri loo xam ne si ni na ci buntu këram aussi am na lu bëri loo xam ne si journée boobu également bëri woon na lu bëri loo xam ne xew na ci nga ñëw ci le mars boobu. waaw journée boobu ci la lépp doore. Mm-hmm. journée boobu parce que xam nga te ji assemblée nationale bi ñuy voté ticket présidentiel bi. Mm-hmm. xam nga Abdoulaye Wade dafa autorisé woon mbir mi nit ñi ñëw ci buntu këram affaire nit ñëw ci euh, place Soweto. Mm-hmm. marche mais gis na lu mu ko jural après mais ñi tamit am na benn benn benn derrière ñi nga xam ne dañoo ñëwoon buntu kër Ousmane Sonko di ko mm-hmm. jàppale si. Mm-hmm. parce que dañoo ñëw dañuy ñëw gunge ko ñu ànd dem. mais bañ ñëwee après affaire bi commencé dégénéré wu. ñu mm-hmm. commencé dóor ay grenades lacrymogènes wetu kër géeg. yëpp ñu ngi koy fàttali comme si démb la song fa nga xam ne ñoo fa ñëwoon ak moom donc loolu doon loo xamante ne nit ñi nit ñi nit ñi mënaguñ ko mën mënaguñ koo fàtte maintenant mais dafa dafa bokkul ak xam nga coow li mu gën a méttee ak li ko gën a déclenché mooy. bu mu jógee di dem bu mu jógee di dem dem na ba génn cité kër góor gi daanaka problème amul. ñu ngi fàttali fu mu génn coow lu kii topp ko nit ñu di génn mu sol ab yëru yu weex tàll. Mhm. dem sol mbaxaneem comme ni ko Khalifa Sall defee woon comme ni ko Khalifa Sall defee woon topp yoon bi di dem. Mhm. mais ci biir yoon bi muy dem yoon ñu ne ko da ngay jaaree yoon bi jaar yoon UCAD bi. da ngay mhm. jaar beneen yoon bi ci euh, corniche bi mu ne du fa jaar yoonu UCAD bi lay jaaree avenue Cheikh Anta Diop bi. coow li daal di ne cobboy ba waa GIGN ñoo ko muddee jëlee ci otom exfiltré ko daal dem arrêté ko mm. te biñ ko arrêté dañ ko topp euh, rassemblement non autorisé ak mm-hmm. trouble à l'ordre public mm-hmm. moom lañ ko jàppee daal koy daal di koy yóbbu léegi yóbboo nag foofu la affaire déclenché na biñ ne arrêté nañ Ousmane Sonko arrêté nañ Ousmane Sonko fépp di dëkk bi commencé yëngatu fàttali ko euh, caserne Samba Diéry mm-hmm. bi nekk fële euh, Colobane nit ñi foogoon parce que moment ñi ñi commencé dem foofu di di sànni ay ñi nekkoon palais de justice di ko fa xaar mm. commencé jàmmarloo tamit ak ñooñu waa parcelle commencé di yëngal Grand Dakar Médina banlieue bi ku nekk commencé ku nekk commencé di nga parce que dañ ne arrêté nañu Ousmane Sonko. Mm. te duñ ko bàyyi noonu loolu nag di loo xamante ne pour man euh, bokk na ci euh, li nga xam ne mooy jur yenn yenn yenn yenn erreur yi ñu constaté ci mbir mi. Mm. parce que nit ki nga xam ne da nga ko doon woo miy ñëw jël beneen yoon d' accord leen ci yoon nga arrêté ko day mel ni benn benn benn jaay doole boo xam nit ñi dañ ko constaté woon. Mm. et finalement moo indiwoon benn frustration bi nag waral ñu bëri loo xamante ne yemul woon ci benn fan. ko jàppee dañ ko jël denc ñu xëyaat tamit nit ñi nit ñi delloowaat buum ca mm. mboy mboy ga mm. mu am ñu si ñàkk seen bakkan moom ñu si ñàkk seen bakkan mm. de léegi bi bi di am je pense que c'était le 3 le 5 Antoine Félix Diome def benn sortie Antoine def benn déclaration mu ne ay acte terroriste la yoo xamante ne euh, ñu ngi ci benn situation catastrophe naturelle la ñu nekk jamono ji donc couvre-feu bi mi ngi en mi ngi en vigueur ba léegi Dakar ak Thiès ñu ngi koy fàttaliku ba tax na sax léegi dinañ ko allégé de wax ñu ne am na ñu ñu rax voilà mm-hmm. am am na ñu ñu rax donc yëpp état dina jël ay responsabilités mm-hmm. mu doon sorti boo xamante ne je pense que c'était pas bien réfléchi mm-hmm. ni ñu ko ni ñu ko structuré ak na mu ko defee parce que période boobu je pense que apaiser la ñu waroon gën a soxla ko koo xam ne da ngay ñëw di tëkku naan dinañ def lépp lu ñu war am na ñoo xam ne bi ñu ko gisee taxul ba tey mbir mi fay parce que def na ko le 5 après ba coow li tamit nit ñi doon wëy di di di saccagé di piller yi nga xamante ne mooy boutique Auchan yi dëkk bi yëpp daal di nekk sens dessus sens dessous mu doon ay jaxase yu yu métti yoo xamante ne jotoon nañ ko ñu période boobu après sax ku ñu wax euh, Alioune Badara Cissé moom tamit mu jëwoon naa def benn sortie mm. médiateur de la république médiateur de la république moom mi ngi def benn sortie je pense que avant ñu doon mm. loolu yëpp du benn tweet sax boo xam ne président Macky Sall def na ko mm. kenn déggu ko kenn dégg ko mu wax et du woon moom donc ñi fareek moom ñëmit kenn gisu leen kenn nangu leen gis fenn ñu waxuñu defuñu dara donc mu doon côté boo xamante ne mën nañ ne peur bi dafa changé woon camp côté opposition bi ñoo gënoon nekk loolu et du coup après nag d mhm. léegi m 2 a maintenir euh, euh, comme ni nga waxee dëkk bi jaxasoo na ci mhm. la coupé ay signal télévision mhm. euh, ku ci mel ni Sen TV ak Walfadjri ñoom nag li tax ñu coupé jotoon nañ sax jot benn mise en garde pour que ñu arrêté diffusion yi nga xamante ni ay contenu la di def li nga xamante ni moom moo di apologie de la violence euh, finalement ñu mujjee coupé seen ay signal. erreur bu Babacar Diagne defoon la.

ak bitim fu nekk lañ leen woo naan ñu leen di suivre hm. donc loolu man pour man c'était une erreur boo xamante ne euh, waru woon ko woon def hm. parce que tamit dëkk mënul nekk di tàkk wala di yëngatu ba pare ngay tere ku si def ay plateau wala ku ci wax kenn mënu woon comprendre yenn télé yi nga xamante ne moment bi nga xam dëkk bi ñi ñaa ngi jaxasoo ñi teg ay micro wala ñi teg ay clip hm. donc télé bu fekkente ne mënatoo informer ça askan bi fekk non ndekete Dakar a ngi tàkk télé hmm. waxuñu ma ko ma jël génn taal sama oto dem départ dugg biir ñu kayaase mm. sama oto léegi ku ma tooñ su fekkente ne amaana télé bi yëgaloon na ma ne ah Dakar ngi tàkkat def may édition affaire mën naa ranger waat bu baax toog jàpp sama ñàmbur bañ a dem mm-hmm. donc parfois information tamit même su fekkee da far wala da nga am leen il faut nga koy joxe normalement CNRA nag li ñu defoon erreur la erreur boo xamante ñoom après biñ demee ba ci ba xam yooyu lu mënoon ñàkk la daal. Mhm. lu mënoon euh, ñàkk la waaye tamit le 8 mars ci la Ousmane Sonko daal di jàkkaarloo ak juge bi daal di koy inculpé euh, la daal di koy euh, bàyyi nag mu daal di dellu këram nekk sous contrôle judiciaire ba jamono ji. waaw mu nekkoon lu ñëpp doon sàkku nag. Mhm. parce que après gis nañ ñu ne kilifa yi wax nañ ci ku ne bañ ne dañ koy déglu suba. ku nekk ku nekk doon wax naa nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi buñ tànk bàyyiwuñu ko dëkk bi du mm-hmm. dëkk bi du daal ko bàyyi nañ ko bàyyi parce que xamoon nañ ne booba tey ji su fekkonte ne lii am su amuloon noonu Ousmane Sonko ba léegi bu demee waaye da koy da koy da koy dóor mandat de dépôt mm-hmm. mu doon demee ak boobu étincelle bi ni xale doon tàngee ci dëkk bi mm-hmm. suñ defoon Ousmane Sonko mandat de a leneen la ñuy wax waaye kon dina wéy di salfaña parce que buñ yi ci leen jox booy une semaine boo xam ne dañoo dem toogi ji ko seen kër jànguñu pourquoi parce que dañoo gis ne manifestation yi ba muy dóoree ci njëkk ba da nga gis ay mm-hmm. mm-hmm. fii parce que ñu boot seen saak di sànni ay xeer ñook mm-hmm. ñook force de l'ordre xale yoo xam ne da nga ñi seen yoon nekkul ci xeex bi dama li ma gënoon eh, jaaxal sax mooy xale yu ndaw yi lan moo leen impliqué ak lan mooy seen yoon ci biir xeex bi après yow boo amee toujours recul doo comprendre xale yi lan moo leen sugal léegi nag ñoom bu ñu toogee tuuti ñu gis ne élèves yi am nañ ci am nañ ci kii bu bëri parce que am nañu dañoo grève woon génn mm. dem fekk ji manifestant yi mm. bokk ci xeex bi ñu ne kon xale yi boo leen leen toog leen seen kër pendant mm. doole bi dina wàññeeku mais gis nañu bi xale yi reculé tamit demuñu seen kër teewul doole affaire bi gën naa mujj gën na dooleeku parce que lu tax benn mbirum banditisme dafa dooleeku ci biir parce que na loolu am sub ñëpp gisoon nañ li am ñoo xamante ne seen i seen i seen i seen i seen i jaasi la ma hmm. hmm. ñu hmm. yor ay fetal je que loolu kii bi doon na ko wax euh, ministre kon hmm. hmm. ñi hmm. xale di séddoo borom saret yi di yóbbu nga comprendre ne li ñuy wax ne bu mbir amee ñu bëri dañ ci profité noonu la demee woon tollu ñu dëkk ci banlieue bi ñu nekk ci côté yu bëri ci biir réew mi am na luñ ci am na am na am na am na luñ ci ci am na luñ ci gis mhm. na loo xamante ne xam nañ lii moo doon li am ak li amul parce que mënoo comprendre tey ji ñi nga xamante ne dañuy dem songi ji benn boutique Auchan kii jóg seen kaw wàcc yeneen maire yoo xam ne seen yoon nekkuloon ci mbiru manifestation yi yëpp mhm. daal di wàcc suuf dem dugg ñii di jël ay saaku ñii di jël lu nekk ba ñu ngi fàttali ko fële Kër Massar am na foo xam ne benn xale bu ndaw tamit ci la ñàkkoon bakkanam parce que ci biir lañ ko fekk mu mu ñàkk bakkan mhm. xamuñu lu ko lu ndax bagage ñoo daanu ci kawam wala leneen ak leneen borom charrette tamit gis nañ doon def. waaw ba mu fees dem donc mu doon ay ay yu malheureux yoo xamante ne ba léegi buñ buñ koy fàttaliku seen xol daf ciy metti mhm. mhm. particulièrement entreprise wala yi nga xamante ne boîte yi nga xamante ne français yi ñoo ko moom ñoom ñoo gënoon nekk ay cible mhm. ñu attaqué leen loolu nag am nañ si jóge sax doon attaqué ñi nga xam ne ñoo fra France dégage. may leen ku leen ci attaqué da leen siy tooñ parce que bëri ñoo xamante ñoo xamante ne ko mënoo justifier seen ay fait parce que yëfu jàmbur la seen yoon nekkul ci mbir mi mais am na boo xam ce qu'il faut euh, retenir daal ci loolu mooy am na benn acte banditisme boo xamante raxoon na ci mhm. man je me dis dafa séparé ak militants yi nga xam ne dañoo meroon meraloon Ousmane Sonko di mhm. xeex moom di xeex ak nguur gi ñooñu dañ doon toog di jàkkaarloo ak takk der yi di dóor di di xeer di dugg ci koñ di dàqante ñooñu ngay mën a comprendre mais nit ki jóg dem dajji ji boutique wala def naka loo xamante ne daf ci bokk le même jour le 8 mars boobee ci mu daal di def ab euh, conférence de presse donc foofu ci euh, siège am nekk ci euh, VDN mm-hmm. mu daal di fa yëkkati nag discours bu bu am solo waaye discours boo xam si ni aussi discours bu bu bu bu violent la. Mhm. ñu bëri fekkoon ko foofu sax nekkoon ca suuf euh, donc doon ko wax ne ko nañ dem palais mu ne du ma dem palais su may dem mhm. palais damay par damay jaar ci urne yi euh, donc euh, mu nekk aussi benn discours boo xam ne si ne discours bu bu am solo la. waaw discours bu am solo la je pense que bi mu ko defee boobu duñ ko defee direct ñëpp dañ ko doon déglu ci yoon bi foo romb ñuy déglu discours bi. Mhm. parce que nit bëggoon nañ dégg mu wax. la moo xam ne moom la jëlee foofu boobu placé nañ ko sous contrôle judiciaire mu génn jàkkaarloo ak régime bi foofu la taxaw wax ñoom nag mu ne ñi foog jàkkaarloo ak ñoom et puis mm-hmm. mi leen di xaar parce que xam na ne lii complot la donc complot bi faire face ak ñoom moo la ciy génne mm-hmm. parce que boo yo xooxalee mën a dellu mën na la def naka sul noonu ci la tamit euh, jaajëfal ñi nga xamante jàppale nañ ko ci mm-hmm. ak ñi nga xamante jaale ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan boo xamante ne ba tey am na benn niveau bu ñu ko teg tamit parce que ils ont compris que ni mënoon na gën a euh, taal bi. Mhm. mais pratiquement xambu ko. parce que su am na ñu ngi ko ñu ngi ko doon xam ne ñu nekkoon su flankaan nañ dem noonu parce que am na fu mu toll woon tey ji mën naa ne euh, vent bi ci côté mi la gënoon féetee na mhm. quoi qu'on puisse dire amoon na benn jamono boo xamante ne moom moo téewoon moom moo téewoon euh, affaire bi ba nga xamante ne euh, ñële euh, tolloo nañ ci tiitaanga yoo xamante ne mm-hmm. jàkkaaroon nañ ne mbir mi dina gën a compliqué seen wet mais heureusement bi mu génnee après constaté nañ nag après affaire bi les choses se sont bi commencé na calmer di wàcc. ndànk mais na ko ndax gisoon nañ ko ni daanaka armée sénégalaise bi yëpp ngi woon ci capitale bi gis nañ ni ñu barricadé woon euh, Dakar ak ay chars de combat donc mu mel ko ne aussi moom xalaat xaroon na loolu ko Macky Sall. waaw xam nga tey ji gis nañ bi ñu doon gis ñu dugg ci biir dëkk bi vidéo yi commencé daw naa ñi ngi mm-hmm. ñëw ñëpp commencé tiit nit ñi nit nit ñi commencé jaaxale mm-hmm. parce dafa am amoon soit dañ doon téye Ousmane Sonko nangu jàkkaarloo ak peuple bi. Mhm. wala soit ñu bàyyi ko mbir mi calme heureusement dañoo préféré bàyyi ko mu calme. Mhm. moo tax man bi ma ko déggee bi mu demee jëm ñaari mu ne li amoon dootul amaat. Mhm. ma ne d' li amoon mën na bañ a amaat su fekkee li ñu defoon defaatuñ ko. xam nga su fekkente ne par tey tey jii su fekkente ne Ousmane Sonko. dañ koo fekk tey jii viol bi amul benn doute wala amul benn kii. amaana mais su fekkente ne mbir tamit dafa flagrant ñëpp gis nañ ne lii boo xoolee ba ci biir ñu ko naan plante fu ma jaar ñu ngi naan certificat médical bi lii la wane mhm. ñi naan kii moo ko yóbbu ñi naan xale bu jigéen bi nii la mel ñi naan kii def na lii ñi naan kii dugal na ci loxoom li après nga wëlbatiku loolu lépp nga bëgg dajale nit tënk ko daal di ko yóbbu ci kaso bi ñu gis ne def nañ ko fi ak Khalifa Sall def nañ ko fi ak Karim Wade mu jàll donc bii ba loolu moo taxoon nag mu am chance tombé ci koo xamante dafa am ñaari cas ko jiitu mhm. nit ñi seetaan moo tax bi coow li jógee rek nit ñi bi ñu jógee dañ ko dañ ko sot am na ñoom dañ ko doon jàppale boo waxee dañ naa naan man mhm. injustice laay xeex ñu bëri loolu lañ doon wax loolu moo tax na après nga dégg ñu wax ay annoncé emploi pour jeunes yi parce que ñoom lu wax dañu jeunes ñoo am loolu liggéey mm-hmm. ñàkk jeune ndaw yi liggéey waaw dégg naa leen mm-hmm. je vous ai entendu loolu loo xam ne bu nekkee jam ñaajo mm-hmm. donc mu ne ndaw yi ñu bëri si ñoom bu doon interpréter événement mars yi ndaw yi ñoo amul liggéey ñàkk xëy yi moo taxoon ak ak couvre yi y avait trop de restrictions mu metti or dafa amoon élément yu bëri yu dajaloo xam ne moo tax mu nekk benn cocktail boo xamante ni bëgguñu ko. Mhm. ñu profitoo ci nag dal di daal di fippu. le 11 mars Moustapha ñu daal di organiser benn euh, journée de deuil donc et de prière ñu organiser ko en mémoire de victimes yi nga xamante ci ñoom ñoo ñàkk seen bakkan euh, ci manifestation yooyu la. waaye ñu organiser ko je pense que ñu bëri dañ ko boycottoon waa société civile ñoo ko organiser woon ak mhm. ñi nga xamante ne ñooy mu yi doon jàppale Ousmane Sonko. Mhm. ñooñu ñu moo doon am benn image bu ñu doon. jaarale si internet bi ñu bëri defoon ko seen profil ñenn ñi di si di ko di ko di di leen ñaanal yàlla mu xaare leen ajjana mm-hmm. maintenant nguur gi nag ñoom dañ cee démarqué woon bu baax a baax parce que ñoom gis nañ ne kenn kenn waxul ci dem defuñ ci dara mm-hmm. mu doon benn benn bis boo xam ne tamit je pense que ba jours ñu compté ci 14 morts loo xamante ne jamonoy Abdoulaye Wade ba mu doon xeex ak euh, deuxième troisième candidature bi sax mm. on a fait presque un mois durant campagne bépp ak avant si la am ñàkk seen bakkan mm. donc te bii cinq jours nga compté si ay dee yu doyoo noonu moo taxoon bis bu bis bu jar retenir la en tout cas mm. en tout cas le mars boobu comme ni nga ko waxee ci la lépp jeexee le 13 ci la ñu di euh, mouvement bi daal di annoncé euh, suspendre appel à manifester le muy le 13 bi donc bu ñu jotee ab demande boo xam ne si ni jóge yu bëri donc ci la ñu daal di dakkal ñu téewoon parce que avant mbir mi doon am. yaa ngi fàttaliku si lañ si lañ jàppoon ko ci mel ni Assane Diouf. Mm-hmm. jàppoon ko ci mel ni Clédor. ñu bëri dañ leen a tegoon loxo parce que mm-hmm. dañoo gisoon ñoo ñoo mën a taal dëkk bi ñoo mënoon ñoo mënoon kos dëkk bi. Mm-hmm. bu ngeen fàttalikoo ñoo ñëpp dañ leen jàppoon balaa mbir mee sori dañ leen jël nëbb leen ci jante parce que dañoo gisoon nit ñi buñ leen bàyyee ci biti mën nañu alimenter ñu ñibbi mm-hmm. après si lañ def benn mémorandum après mu am ay ñoo xamante ne xalif général des mourides moo leen délégué mm-hmm. ñu ne leen bàyyi leen seen marche bi ngeen bëgg parce que dëkk ba léegi mi ngi tàkk mi ngi saxaar mm-hmm. ñu ne ko ñun kat suñ bëggee ñu toog jàpp suñu ñàmbur faut ñu bàyyi ñi il faut ñu def point point point tënk ay point jébbal ko ko mm. léegi bi ñu ko ko jébbalee ci lañ ci waxtaan après ci lañu gis ñu commencé di leen bàyyi benn par benn benn par mm. benn benn par benn ba ñoom ñëpp ñu daal di ba ñoom ñëpp ñu daan dem seen kër ñu daal di dem seen kër le mars Moustapha euh, Adji Sarr daal di génn moom mi nga xam si moom mooy nday mbili gi mm-hmm. euh, kenn gisu ko woon kenn xamu ko woon kenn xamuloon fan la nekk mu daal di euh, film viol bi. Mm-hmm. nga xamante ni dox na ci digganteem ak Ousmane Sonko mu aussi coow lu bëri. waaw sortie boo xamante ni bëri na yu si am. bëri na yu si am parce que ñi ne dañ ko doon dicté dafa wax li yenn saa ak média nañ ko defee. Ah. ñu ko rek. Ah, ñi naan ay écouteur hors hors écouteur sax waaye ay luñ koy waxatee sax. yooyu ñuy jëfandikoo ci ci ci ci la am mm. nañu si bëri commentaire yi daal demoon na bu nekk mm. ba ñu jàngatoon ko fi sax jamono jooju wax ci forme bi ndaw si mm. na mu ko defee parce que déclaration la buñ ko posé yenn question yi ba ca dafa ëmb après neuf mois après gis nañ ne am yu bëri yoo xamante ne mënoon nañ ko retenir ci sortie boobu mais dafa am ay ponk yoo xamante ne moo ci ëppoon solo yoo xamante ne nit ñi gis nañ ko mooy Adji Sarr boobu kenn mënu koo ràññee mhm. bis boobu la génn toog sol benn yëre bu jaune noir daal di kolu toog mu def comme ibaadu mhm. di wax li muy wax ànd ak avocat mu assisté ko mu def déclaration bi mu paree déclaration bi nag après def sa lecture mhm. mais ñi nga xamante ne am nañ tuuti benn dégg-dégg après boo peser le pour et contre di nga xam ndaw si li mu wax tegu na wala teguwul maintenant ñu gis nag ay contradiction yu bëri amoon ci ay kàddoom moom la doon moom la doon indi. Mm. te mu wuute tamit ak la nga xamante ne moom la waxoon tamit ci PV bi mu ne bu indee pistolet bi da ko daan teg na le rek. Mm-hmm. da daan da daan gis nga pistolet bi. a da ko mm-hmm. moom la ndaw si gën a privilège di di bon moom la gën a jiital. Mm-hmm. ne dañ ko doon violé dañ ko doon sàkku mais après ñu gis ne. même nit ki bu lay violé naka ngay mën a toogee naan kañ lay ñëwaat ak di poser ay questions ak yooyu yëpp ñu gis bëri ay contradiction yoo xamante ni mm-hmm. mën nañu sorti boobu dafa jógoon pour defar mais dafa am li mu ko yàqal sax amaana moo bëri moo ëpp moo ëpp li mu ko defal et euh, je pense que c'était pas bien réfléchi mm-hmm. mu def genre sorti bu nu mel même si nag jamono moo ko laajoon mu génn ah. wax mais li naan ku wax rek feeñ et bi mu ah. waxee ñëpp xam nañ ne sentiment bi ñu doon bi ñu doon am ci am na tout am na manipulation bu dugg ci biir dossier bi ah. daf koo gën a conforté daf ko gën a conforté ci déclaration boobu sax daanaka moo ndar képp dossier Ousmane ko ndax boobu ba léegi eh, amatul lenn lu yees eh, ginnaaw eh, décep ki nga xamante ni moom mooy doyen des juges Samba Sall le 8 avril hmm. donc ba léegi daanaka dossier boobu mu ngi nelaw waaw le 8 avril Samba Sall daal di génn àdduna. Mm-hmm. mbir mi gën a doy nag mais bi mu génnee àdduna tamit ñu ci euh, naqarlu rek mooy yenn commentaire yi nit ñi doon def. Mm-hmm. ci nit ku génn àdduna je pense que nit ki booy. Euh, mm-hmm. booy xeex ak moom wala nga d'accord ak moom nga am ay divergence ak moom ba mu génn àddina boo ko mënul seede lu rafet tamit nga maandu je pense que pudeur ak respect loolu la ñu jàngal. mais soo su fekkente ne da nga am ay wuti jafe-jafe ak moom sax su génnee àddina par respect mm. euh, à sa mémoire mm. nga daal di tey maanu daal di jàpp sa gémmiñ waaye gisoon nañ tamit ay commentaires yoo xamante ne vraiment euh, du du du lu sénégalais quoi du woon ñun man yaakaaruma woon ne Inde ba toll foofu ci nit quoi mm, parce que nit lépp lu mën di def ak loo mën moom bu demee rek bu génnee àdduna bàyyi ko suñu borom mm-hmm. te li ñi ñi di wax sax mooy da nga koy ñaanal njéggal parce que fii kenn parfait wul kenn kenn matul loolu nag mu indi benn arrêt boo xam ne indi na ko ci ci ci dossier bi waaw parce que dafa indi benn tekk tekkaaral gu yàgg ba ñu amee euh, euh, doyen des juges yàgg yàggul dara moo xam Diallo bañ ba ba mu ñëwee yàggul li ñuy yaakaar ne nag euh, dina yëkkatiwaat dossier bi yëngal ko parce que dañoo gis ne comme na mu dooree xam nga mbir boo ko yëkkatee mu nekk ab pataas bu tàng mm. boo ko tegee doo ko gaaw jëlaat mm-hmm. te noonu la demee si ñoom dañ koy yëkkati mu nekk pataas bu tàng mm-hmm. xam nga ki nga woo mu am jafe-jafe pour mu dem wuy tey ji bu ñu xayatul waat Ousmane Sonko tamit jafe-jafe yu mel noonu la amaat mm-hmm. moo tax dafa nekk benn dossier boo xamante ne mën nañ ne ñi si ñi ñi leen ci dugal mm-hmm. ak niñ ko monté ak fi ñu ko teg dañoo def ne maanaam niñ ci yaakaar woon noonu la yombe non non yombewul noonu mm-hmm. xam nga ni ki nit par exemple mu mu mu am lu muy def nga bëgg fa jaare muy mi daanaka nga nga fekk nit ci benn dex wala mii naan nga bëgg fa jaare labal ko mais su doone ko am doole lab bi du yomb noonu boo moytuwul yow la ñuy labal boo moytuwul yow la ñuy labal parfois nag yooyu ngay gis genre politicien da gis nit ki mi fréquenté fii nga ne war naa fa mën a jaar teg teg ko piège mm, mm. nit ki mi ngi dem fële nga ne ko war naa fa mën a jaar soit otoom laay manipuler wala mi ngi fréquenté sud boote ban piège laa ko foora mën a tendre nan laa mën a def yooyu yëpp di ay calcul yoo xamante ne bu dee da ngay suivre histoire politique lu yàgg am la nit ñi dañ leen di empoisonné mm. Abdoulaye na ko nee empoisonné sax mën nañ la koo def parce que politique moo ni mel donc yooyu yëpp nag après je pense que moom dina si dina dina si gën a gagné en maturité parce que li mu dund ci événement mars bi nii lu lu lu baax la ci carrière politique am laay wax man lu baax laay wax parce que xam nga lu tax am na lu mu ko dimbalee am na lu mu ko jàngal am na lu mu ko servir parce que dina tax ëllëg mu gën a taxaw xoolaat bu baax a baax naka lay doxalee ak entourage ak ñi koy waxal découvrir na ci ay nit ñu bees ñu bëri xam na ko donc yooyu yëpp pense que ci carrière politique am dina ko amal benn benn njëriñ boo xam ne dina ko jàngat am lu muy éviter ak fi mu bëgg a dem en tout cas loolu moom moo nekkoon euh, li nga xamante ni rétro la woon jëm ci wàllu Ousmane Sonko Adji Sarr seen dossier boobu nga xamante ni mi ngi ci euh, devant mi ngi ci sur la table du euh, du du doyen des juges donc ba léegi mënuñ ko mënaguñ ko yëkkatiwaat waaye tamit Moustapha laata ñuy tëj rek ci xew yooyu aussi am na ñoo xam ne si nii Euh, am nañ ci tour mhm. euh, am nañ ci euh, visibilité maanaam defar na ay nit aussi ba mhm. Sénégal yëpp xam leen mhm. donc loolu aussi bëggoon naa ñu ñu taxaw ci waaw am nañu si gagné am nañu si perdre xam nga bu xew-xew amee mu amee jafe dina am ñoo xamante ne dañ ciy gagné am nañu si am na ñoo xamante ne gagné nañ ci El Hadj gis nga bi mbir mi jógee moom xam nga moom ak Abou Diali Kane ñoo nekkoon avocat Adji saar mais moom Abou Dialé bu weesoo benn mm-hmm. interview wax ne accordé woon na l'observateur mm-hmm. kenn gisu ko ci benn plateau kenn gisu ko fenn mu wax mm-hmm. mais kii di Maître daanaka moom moo doon wër plateau yëpp ñoo xamante moom mën nañ ne bu dee beneen côté bi la moom moo fa am fitu jàkkaarloo ak ñi nga xamante ñooy camp adverse camp Ousmane Sonko ak ñeneen ñu bëri dañoo làqatu woon même ñi nga xam ne dañoo faree ci nguur gi ak ñeneen ñëpp kenn nangu woon dossier boobu mhm. noonu bu weesoo avocat bi di maître El Hadji Diouf nga xam ne moom da doon jàkkaarloo ak ñoom ñi di di tiiranteeg ñoom amul dara lu mu ciy daw mhm. bu ko passé beneen côté bi tamit da ngay ku ci mel ni journaliste Pape gis nañ ci mel ni taxawaay bu mu ci am ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante am nañ taxawaay boo xamante ne mën nañ ne bokkoon nañ ci ñi nga xam ne dañoo dooleel kii di kii di Ousmane Sonko ak tamit euh, acteur politique yi euh, bëri ci ñu mel ni ñoom Aïda mboot ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne taxaw nañ ba ci waa Yaana Maar FRAPP ñu bëri dañoo daanaka société civile bi dafa divisé woon en deux parties benn partie bi dañoo affiché woon carrément ne Ousmane Sonko mm-hmm. jàppale ñoo ëpp doole mooy activiste mooy ñi xam ne dañuy xeex dañuy fippu mm-hmm. dañuy def ay communiqué dañuy de presse dañuy génn ci mbedd mi mm-hmm. ñooñu doon jàppale Ousmane Sonko bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ko dimbali bu baax a baax beneen partie société civile bi nga xam ne rek mooy ñu classe bi ñu mel ni ay ONG 3D ñun ñëpp daanaka dañu doon woote calme toog jàpp seen jàmbur ak yooyu mais activiste yi dëgg yi Ousmane Sonko lañ doon jàppale te loolu moo tax mu nekkoon seen force moo ko doon dimbali moo ko doon may doole moo ko doon gën a taxaw. yaakaar naa ni am na solo loolu yi nga xam ne ay fàttali la eh, ci mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr xewoon fii ci eh, mois de février jàpp euh, mars euh, ba avril. donc hmm. mu nekkoon na coow loo xam ne si nii kenn dootu ko fàtte ci ci miim réew. Hmm. ginnaaw yi fi xew yëpp su fekkente ni rek amuloo leneen loo ci dolli eh, ma bàyyi la nga daal di eh, tàggatoo yëkkati. waaw muy événement bu triste Mahfous. Hmm. événement bu triste la. parce que suñu justice encore une fois dañ ko mal mëne woon bu baax a baax parce que ñu bëri xàcc nañ wax lu ñaaw ay juge euh, xas nañ ñu ñaaw procureur bi dégg na fi lu nekk Serigne Bassirou Gueye mi dem. lu nekk dégg nañ ko fi suñu justice ñëpp je pense que daal euh, laal nañ ko ci bu baax a baax mm-hmm. moo looloo ci gën a regrettable leneen li mooy tamit euh, bakken yi si rot mm-hmm. ñuy ñaan yàlla mu xaaral leen àjjana loolu tamit doon lu tiis loo xamante ne war na tax nit ñi gën koo bañ a fàtteeti waaye tamit ñu tiir say enseignement mm-hmm. je pense que lépp lu mën a am ci mbir bu amee ba noppi da lan lan laa ci jàngee dafa am solo xam nga tey jii nguur gi fi nekk nii dafa am loo xamante nit ñi dañ leen koo bàkkee ñu xamee ko. Mhm. mooy di éliminer adversaire jaay doole jaay doole di éliminer adversaire et je pense que loolu ñu dund noonu nag ak Ousmane Sonko war na tax ñu def benn frein def benn break taxaw. Mhm. xam ne du ñëpp la ñuy éliminer du ñëpp la ñu mën a faagaagal. tax nguur yàlla moo koy joxe te moo koy xañti nit da koy bif sax la wax dama mm. koy jël mm. donc kon kooku di joxe nguur di ko bif si nit ki je pense que moom bu ñu bu ñuy wàqeelu ci moom rek du ñu am yenn jafe-jafe yi nañuy moytu singale bi def dëkk bu am justice yoon mm. parce que bu yoon bu yoon jaaroon yoon rek dëkk yu mel ne ay Israël dañuy wax seen premier ministre weñ du damm dara du naaw mhm. problème du am day dem wuy ji mhm. dëkk mel ni France da nga fay autorité ñu woo ko Nicolas Sarkozy condamné nañ ko kan mu wàcc tali bi kaas kenn kaasu mhm. parce que dañoo wóolu seen institution wóolu seen justice mais bu demee ba justice bu wootee nit ñëpp naan di sikki sàkk c'est parce que justice boobu dese nañ kaa wóolu moo tax tamit il faut que ñu góorgóorluwaat xam ne a wér a wér acca xamante ni moom moo nekkoon ci wàllum réalisation bi ak technique bi li am na ci donc mhm. dañuy def les rétro euh, moo xam ci wàll fànn fànn bu nekk. Mhm. Euh, donc ndax dafay am solo ñuy fàttali euh, événement yu mel nii donc ndax dafa marqué li nga xamante ni moom moo di année bi donc jaajëfal également. ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy topp tous les jours euh, fii ci Sunugal 24 te donc ñoo xam euh, ci biir réew mi li ñu nekk wala ci bitim réew leen wax ngeen abonné ci sunu euh, page Facebook donc ngeen aimé ko donc ngeen daal di aussi abonné ci sunu page YouTube activé la cloche notification di ngeen am les vidéos en temps réel.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 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñëwee nee góor ngóoraa tax